تنقلب القلب نام الله تنقلب وما دعاك فلا تنقلب لا تنقلب خير لا تنقلب خير من أهل الشر لا تنقلب مؤمن مني بها واو اسمي يا رب محمد صلى الله عليه وسلم من لا تنقلب بها تكتب بها يا رب Yang bersuara dalam amul kenn ku ne leen ci soxla moom rek lay xool moom rek lay xool moo tax moom rek yàlla ko gis woon naan daal laa wala chien ak baax yàlla yàlla ko gis existé te moom yàlla existé dara li mu demee ba sopp nag ci la bind leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek mu nekk fa di jàmm yàlla di màggal yàlla di sikkar di bambantu yàlla soixante-dix-huit mille ans pour le di France nga ne producteur moo nekkoon ak yàlla di bàq yàlla di màggal yàlla di tagg yàlla di sàbbal yàlla soixante-dix-huit mille ans leeru yonent bi salaay salaam ñu xam ni boobu ci la ñu déggee ñi wax xaqiqatu ahmadiya ñu wàccal suuf wax xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya nag loo xam ak as ko ay dëgg bu yu jàmm na saa salaam xam yàlla ne inna allaha wa malaikatu yàlla ak samay malaaka ñu julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla day julli ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax julli ci yonent yi kenn rek rek muy yàlla kenn rek moo mën a julli ci yonent yi muy yàlla kase wala moo mën a julli ci yonent yi kenn Şey şey, da ngeen yéene jëme ci moom kon yéen ngi jëme ci moom ah yéen ngi jëme ci moom ndax yaa ngi jëme ci moom ngay jëme ci moom loolu Fatih nee na Fatih xale jàng salaam Fatih xale jàng jàngal ma ni lay wax Allahumma salli yàlla maa ngi lay ñaan léegi doo def léegi yàlla nga allah wa yàlla yàlla maa ngi lay ñaan sànni nga tuddee ma ci yoon bi ndax yàlla nekk ci biir yàlla rek loolu subhanahu wa taala mooy dund ci loolu ci loolu sax nga xam cër bu waaye yàlla ne nag ñu liggéey kon ko rek ñu ne daf ne man yàlla damay dund ci loolu ak samay malaaka nit ñi xam ne lu yàlla di def lu yàlla di def mu xaaral ci ñu def di ko te yàlla jëlee nit ku bëri moo tax ñëpp lool moo tax salaatu boobu nit yi yëpp li ñuy wax mooy allahumma yow yàlla salli yàlla ñu ngi jógee ba salli ngeen yéen ak allahumma yow yàlla salli yàlla ñu ngi jógee wala nga jógee naa doon sàmm salaatu yëpp loolu yëpp allahumma salli dañuy naan yàlla yàlla bu leen ñu sayabilirim. Gelerek o kapıyı aldım savunacağım. Rica Yani mo dikdeki mo bu bir dikdeki dikdeki kendi okuma o yardım savunacağım. Bu yüzde doksan. Bitta. Ñuy màggal yonent bi min alkar da am julli ci yonent bi bokk na ci jaamu yàlla gën a mag ci jaamu yàlla yi waaw li nga yónni bokk na ci jaamu yàlla yi gën a mag ci jaamu yàlla yi Cheikh Oumy dafa ko teewee ba jamono dina tilim jamono dina tilim ba turu yàlla yi ñuy jaamu yàlla yi ngeen xam que dafa fii dënn benn bopp ci dox Bila ni Dah mungkin Masyaf Bagi belum tak ingin Mati dia tak pakai dia Dia macam macam Allah Dia macam dia Dia tak tak Nanti saya patut mampu Ya lain dari Tak Tak ni nyula Jangan lupa Mulut ni nak berbuah lebih dah Dia berbuah Dia dah lebih dah yow yaa ngi doon li ci nekk ci gën a gën a am tool bi incha allah bi xam naa yeneen yeneen julaay incha allah dañ ci dinañ ci dinañ ci waaye benn baat rek xam ko mooy bi affaire bi suul yi moom naan ak yàlla ko li yàlla di di def xëy na yàlla sallallahu alayhi wa sallam gën a màgg ndax la ñu ci sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla ko yàlla mënoon nañu bind boole ci jamono yëpp yàlla ko def ko mën nañoo boole ñoom jàll góor def ko mën nañoo boole jàll bu sax def ko lenn rek la ñu bañ waaye bu jàll la sax génn ñu di ko ci bind ni mu génnaale ko ñu am ci jàll ko loolu dinaa la ëpp ko loolu njëriñ bëri ko moo tax gërëm jar na ko nekk naa ne moo tax ku xam dañoo ci xamul dañoo yor jàll ak te nu muy yëpp ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi jotee wax incha allah loolu moo nekkoon kat yi ak partenaire yi surtout jéem bi ñuy jàpp ba xaaj maa ne ko gën xaaj maa ne ko gën ñu am xam nga bu chey moom gën xam nga bu chey wax nañ ne li tax mu bind ko ba feebaroon ba réalisé benn côté fajoo faj fajoo faju faju faju na ko bu mu wér dan duk masih di kira-kira di sungguh cinta masalah bukan berkira masalah itu yang itu setelah dimakan makan tak itu ya tak banyak kok dikenalnya budu kok mau kerja lagi Nah, kamu tidak boleh jadi, jadi tidak boleh ci yàlla it bokkal nañ ko ndax barke bi ci ne kon barke bi ci ne yàlla waaw barke bi nekk ci jéere yàlla